Serigne Babacar Sy mooy sama baay Cheikh Hadj Abdoul Aziz Al Amin boole ñu ak Serigne Sidi Ahmed bu suñu baay Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha boole ñu ak Serigne Babacar Cissé bu suñu bàjjen suñu yaay soxna Oumar ak Serigne Habib sama rakk ba Serigne Mansour Serigne Moustapha bu Serigne Abdoul Aziz ak waaye ak suñu mag ñun ñëpp nag muy Serigne Mouhamadou Mansour Sarr bu Serigne Mouniru Sarr di borom jataay bi di borom kàddu ànd ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp nag ci jataay bi ànd ak imam yu tedd yi ànd ak muqaddam yi ak soppi yi ñépp ñu ngi ànd wattu ko di nat na bi ci ndigalam ñu ngi nuyu njabootu diine ji yépp jiital ci sunu kilifa suñu xalifa Sëriñ Babacar Si بشر الحاج منصور رضي الله عنه نيو مكة لسستيما نوي سيدي الحاج مالك ومع الشيخ الحاج عبد العزيز رضي الله عنه أكني مكبوك النيب ينوي دين ديب نور كيف دين يب diine ji yëpp di leen siyaare ci bés bu màgg bu tedd bii di Iidul Adha al Mubarak fa tabaraka allahu di leen ci ndokkee bu baax a baax di ñaan nii ñu ko teewee rek yàlla ñu ko teewee noonu